xibaari biti dañu koy dooree ak réewum Benin benn doomu réewum Benin ak ñaari doomu réewum France ñoo réer mër kooku nag nekkoon koo xam ne da daan gindiwaate ci wàllu tourisme gannaaw nag nemmeek guñ doon amal ca parc national bu ñuy wax Bandiaary mu frontière ak dëkk bii di Burkina Faso booba léegi nag amuñu benn xibaar ci ñoom waaye seetga ngi teg leen bëtt ñaa nga koy wóyal mu nekk nag loo xam ne jamono ji ëlëm na waa dëkk ba li tax bi gën a yéeme mooy xamuñu dara ci anam gi ñu demee ñu dem ba réewu yi ay civil yu bari faat nañ leen ci Mondori nekkee ci région bu Mopti gannaaw nag dañu fa faatandoo woon ci ak caytu gu ñu fa doon def kuréelu way mbootaayu xeet yi daal di génne ab rapport jëmale ko ci mbir yu ni mel ñu mën caa jàng faatu lu toll ci téeméeri pël ak juróom fukk ak juróom benn mu nekk nag mbir moo xam ne ñu bari na xalu nañ ko bu ñu sukkandikoo ba léegi ci mbir moomu nag ñu ñuy xamal ñu faatu ñu ci ëpp ñu nga nekkoon ca Mondori nekk ci région bu Mopti ñu dem ba réewum Allemagne jamono ji nag ña nga yokk seen i doole rawatina nag ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu kaarange Angela Merkel ma nga fanaan jaamee ci waxtaan nga xam ne nag tàmbali woon nañ ko rawatina lépp loo xam ne jëm na ci wàllu kaarange ak ndaw yi nga xam ne nag dañuy topp géej gi di dem Mouhamed Youssouf te naa dajee ak ñi nga xam ne ñoo fa teewal société civile bi ngir ñu béy seeni xalaat jëmale ko ci bëgg-bëgg boobu rawatina lépp loo xam ne jëm na ci wàllu kaarange gi ñu daanale ko ak réewum Venezuela ñu nekkee ca ku ga woote woon ay manifestation mu nekk nag bu njëkk gannaaw bu ñu bàyyee ka nekkoon ca ku ga di Leopoldo sa manifestation boobu nag bari woon ay nit lool waaye nag mbir yi mujjee ci ay grenade lacrymogène ngir tas mbooloo ma ñu nekkee foofee nag di xam ne ne mbir yi danañu ko wéyal ci ay bis yi nga xam ne nag moom la ñu dënmal jërë ngeen jëf mbokk yi leen leen indiloon ci xibaari bitim réew yi